jërë jëf mbokki euh, internet yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di euh, jaajëfal yéen ñu ñuy teewlu ci seen bii di Naractu yi dal leen ak euh, jàmm mbir mu réeloo te xoromu lool dal di am niki tey jile gannaaw ba nga xamee ne moom président Ousmane Sonko ma ngay amal la boobule live ca page Facebook buggam gis nañ nag ñi nga xam ne ñoo di waa RTS ñoom ña nga toppoon boobule direct ci seen page eh, facebook di seetaan lu nah, ni mel moom président Ousmane Sonko mu mel ne nag jamono jile gannaaw ba nga xamee ne nag dal dina jiital kii di Bassirou Diomaye Faye mu mel ne wéetu ca benn ci ya. jiital googee nga xam ne kii di président Ousmane Sonko dal dina ko koy ya. jiital ñu gis ne rek ki nga xam ne nag di capitaine ya. Seydina Omar Touré moom dal dina ñëw rek dal di jàppale si ki nga xam ne nag moo di Bassirou ngir ne yile élection nag dañu ko war a gagné ci premier tour la yile gis nañu ne nag ki nga xam ne nag. mu di Marème Soda Ndiaye moom it daal dina ñëw ngir rek dal di jàppale si ki nga xam ne nag mu di Bassirou Diomaye Faye ci élection présidentielle yi nga xam ne nag moom la ñu daal di dëgmal mu mel ne jamono ji moom Bassirou Diomaye Faye nag mooy daal di def ba sa gannaaw ba nga xamee ne moom président Ousmane Sonko dal dina koy tabbu jiital ko wax rek na nga xam ne noonee nag la ko dal di tànnee ca jukka jàkk xel maak jàng mu sori ma moom président Ousmane Sonko niki tey jële nag la daal di fësal lu ni mel